للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sandaatee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen rek niñ ko baaxoo defee eh, ñaari dafay am ñoo xam ni Eh, seen liggéey dafay làqatu waaye dafay doon liggéey bu am solo ndax Covid bi addee Sëñ Tuubaa ji yëg na ko waaw wala déet day mel ni rek baat yooyu rek laa ko fa yéenee laaj mu wax nu ni muy coordonné daayira yi ndax defe naa ne lu jafe la ay nangami daayira ñoo ñëw waaye ndax Covid bi muy tawat yi nga xam ne mun Muntaxaa moom wanan nanu ni waxan nanu ni jaamu suñ borom la ndax Covid boobu wàññi na addee Sëñ Tuubaa ji wala daa yokku loolu lépp bëgg nañ koo xam ci sëñ Làmp Njaay incha allah. jërëjëf sëñ Koso noo ngi nuyu ak yi nga àndal yëpp di nuyu téléspectateurs yi di sant yàlla di jënt yi alayhi salaatu salaam di sant Seexul Xaddim jërëjëf sëñ Koso waaw euh, ni nga ko waxee noonu la demee dañoo am ndigal ci liggéey bii nuy liggéeyal sëriñ bi ci barab bii muy di ko taxawul dayre yi ak fun mën a jóge mu boole noog sunu kilifa sunu jëwriñ sëriñ Cheikh Abdou Latif ku fi ñëw dinañ la identifier xam fi nga bàyyi ko moo yemut cib daayira moo xam yitte la moo xam soxla loolu soo am sa digganteeg sëriñ bi lu mu ci mën a am danañ la teqantal ba nga àgg ci moom waaye li gën a li nga xam ne mooy ndigal li gëna siiw nag ci sunub liggéey te gën ci gën a sax mooy daayira yi euh, daayira yi nag moom ñun lijjanti gi euh, jafe na jafewut ndax loo xam ne ca nga yaakaar ngërëmal sëñ Tuubaa loolu mënut a jafe ci yow loo ca gàlloo rek da koy jar ci yow xanaa kay mbokki taalibe yi ñëw xëy na ñoom ñoo yore njàmbaar gi ndax ñoom ñi dajale seen alal ay at dugg ci kaar yi ñi dugg ci sareet di wuy ji ay réunion di def ay euh, réunion bureau di sonn jëwri ñi daayira yi di sonn di collecté xaalis bi ba mu def benn ba ba yambal ko ba def ko ci enveloppe ñu ñëw euh, fekk fi am làmp njaay rek mu war leen a li ci des mu war koo lijjanti loola bu ko làmp defut làmp ab yaafus la ndax loola loola la la jiitu ci ginnaaw laay xool loola gën a jafe fop li dox seen diggante ak sëriñ bi kon nag bu nu sëriñ bi jëlee doxale nu suñu diggante ak ñoom loolu ak leer naññ rek moo fa war a am te loolu mooy sunu loolu moo ci sunu pas-pas ci leeral diggante taalibe yi ak sëriñ bi ci teqantal diggante taalibe yi ak sëriñ bi ci kenn ku ne fa nga bàyyi ko kenn ku ne yitte ja nga am ak ak bëgg gi nga jublu jublu gi nga jublu gi nga jublu ñu leeral ko ko ba mu leer naññ ci loo indi moo xam muy addiya moo xam addiya ji nu mu mën a mel ak fu mu mën a bàyyi ko bu loolu jàllee li nga laaj ci wàllu Covid bi li nga xam ne ñun danañ ko xam ci addiya yi xam ne lu fi ñëw ci sunu loxo lay jaar ñoo koy bind xam na mu toll looloo moom Euh, li sëñ Diop waxoon barki mu sëriñ bi rek moo ci nekk sëñ Alioune Diop euh, euh, Covid bi dafa ñëw ngir wane kenn ku sëñ Touba gi ndax mbooleem lu nit doon def benn ren def na ko ñaar. naa ni ko sëñ bi waxee léegi ci màggal gi xar yi jeex na takk nag yi jeex na takk waaye nag loolu wàññiwul dara ci taalibe ñi ñi ñi doon ñëw waaw ba ci waa Angleterre mii sëñ Abdou ak i mbay mee huit millions lañu fi daan indi. ren indi nañ fi 15 millions waa France ñi xam xam naa seen addiya 44 lañ fi indi woon te indi nañ fi 59. noonu nag ni la ni la waa Mali def ni la waa Burkina def ni la waa Gabon def ni la waa Kafeer def ni la waa Mali def mboolem daal ñi fi ñëwagun kenn ku ci nekk dafa mel ne Covid bi dafa takkaat sa ndigg takkaat sa laxasaay kon nag loolu day feeñal ne. kenn ku sëñ Touba gi waa jamono moom taalibe sëñ Touba yi yëguñu jamono sëñ Touba rek lañ te loolu nag mooy mooy dox ba léegi nag loolu moom xam naa lépp li sëriñ bi jeexale démb rek la mooy du nun sëriñ bee segem sëriñ bee nag nan ko bàyyee lépp ak sëriñ bi noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëjëf lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul xarraa ahmadu